date euh, du scrutin tey lan lañ mën a jàpp ci loo xamante ni moom lañ génne ci biir. waaw liñ ci jàpp mooy sant yàlla rek sant yàlla remercier le président de la république moom mi proposé stratégie bi wala démarche bi pour que ñu mën a am de manière consensuelle au moins date boo xamante ni nit ñi dinañ d' accord pour ñu mën ci dem élection yi quoi. bon moi personnellement j' étais au niveau de la commission date de l' présidentielle nous avons échangé nañ février cinq ñu proposé le 28 avril ñu proposé le mois de juin ñu proposé 19 mai mais bi ñu waxtaanee ci suñu biir gis nañ ni consensus bi ça tourné autour du mois de juin c'est-à-dire actuellement def élection ci mois de juin mooy tax ba lépp luy gàllankoor rek wala loo xamante ne nii mën nañu pénaliser sur le plan culturel social wala religieuse ay événements yu fi am ñu teg ko de côté parce que mois de mai mois wu fête la ñu ni kon donc mois de juin moo gën ci loolu lañ étudier daal ni peut-être jàpp nañ ñi le 2 juin war naa nekk date bu baax boo xamante ni war nañ ci mën a organiser élection ndax jàpp nga ni que consensus dina ci mën a am ci wàllu candidat nga xamante ne tey ñu ci bëri teeweewuñu li nga xamante ni mooy. xam nga consensus moom wax ñu consensus buñ koy wax ñu discuter la wax consensus. parce que dialogue boo ci bokkul ñëwoo kooku mënuñu la boole ci consensus mais ce qui est sûr et certain nañ ñi ñu nekkoon ci biir salle bi yëpp par acclamation on valide nañ la date du 2 juin et c'est ça le plus important mbir nag bu fekkente ne dañ la woo ci yaakaar naa ne bu am yat bi muy dóor aussi dañ ko dóor sa kaw ce qui est tout à fait normal par contre am na lu ñu fi retenir lu am solo mooy les candidats déjà validés ñooñu validé nañ leen cela veut dire que concerné leen donc dans tous les cas ñoom war nañ mën a accepter la date du 2 juin d'autant plus que seen ay dossiers dañ ko étudier xool par quelle démarche la ñuy proposer pour que ñu étudier waat ce dossier ñu def réouverture des dossiers en général. Mhm. parce que lool lépp lu ñu ci jublu mooy jàmm ci réew mi lu ñu ci jublu mooy un pays apaisé lu ñu ci jublu mooy ñu dem élection ci jàmm élection yi jeex réew mi continuer di nekk ci jàmm ba pétrole ak gaz ak yeneen yi ñëw yëpp ñu mën koo gérer ci dal. ñu man koo gérer ba population yëpp mën cee bénéficier wu. te parce que jàmm moo gën ay. te jàmm aussi ci la développement mën a amee. ci cadre boobu ndax tey euh, ci réouverture de d' autres dossiers mën nañu xaar yeneen candidats nga xamante ne nañ ñoo dolleeku ci 19 candidats yi retenus déjà par le conseil. waaw mais war na nekk parce que moi je me suis je me suis toujours dit que comme sénégalais yi ñooy voté ah. c' le gouvernement du peuple le peuple et par le peuple cela veut dire que démocratie kii nekk président de la république du man maa koy tànn du yow yaa koy tànn mais sénégalais yi ñoom ñoo koy tànn kon tey bu fekkente ni am na ñu bëgg a nekk candidat respecté conditions yi war nañ leen a mën a bàyyi ñu bokk. par exemple ku mel ni Karim war nañu mën a étudier dossier mu bokk Sonko s'il le faut si la loi d'amnistie bi nga xamante ni ñun ñëpp dégg nañ le président de la république wax ko mu am possibilité bokk ci élection juin ou bien mois de juin mais na loolu mooy jàmm réew mi parce que tey même bu ñu amoon 200 candidats 100 ki ñuy fal ëllëg mu jiite réew mi population Sénégal la koy fal du ay Ghanéens ñoo koy fal du ay Burkinabé ñoo koy fal mais ce sont les électeurs sénégalais yi déplacé wu dem voté ñoom ñooy valider seen ay suffrage pour que kooku mën a nekk président de la République. jërëjëf monsieur le directeur. de l'emploi